wa sayyidil kawnayni baasitan na'iim بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله yéen mbokk jullit yi mbokk taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baalu ak bu baax waaye di leen ñaanal jàmm ak sutura barke Cheikh Ibrahima mu biir su ma dimbali ba naw fekk waa bés bu mag bu toll nii ñu ko ci sant bu baax nekk ni daaw mu fekkee woon ko yàlla dogal ni fekkee ñu jëlee seer boobu yi Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moom toog jotaayu Serigne Touba su bu fee yàggal te gàtt na ko ba lépp naa ci yow Serigne Touba mu waaye noonu kat dañuy ñaanal Serigne Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne moo fi toog jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall mu yàggal fa lool te mu ànd ak wér noonu ñu seeree mbokku jur yi fi teew ak mbokku taalibe yi tey ji kat ñu teew bis bi nga xam ne. bis bu taw sang waaye bis jullit ñëpp mel ni gàmmu gi boo ëllëg bu taw sang la woote ko fii ci tund Pambal ci ci village bi naan Masiane lépp mbokk ci Tiwaawan kon bu ko defee fi ñuy commencé liggéey bi comme dañuy nekk ci wàllu cérémonie bi kon bu ko defee dañuy daal di commencé liggéey bi nga xam ne incha allahu dañuy daal jox euh, kàddu gi Serigne euh, Babacar Dione mi nga xam ne moo chef chef de village bu ko defee juróomi minute rek. nga xam ne waxtu bi dina gën a yem incha allah. alhamdulilahi salaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu leen di nuyu di leen siyaar di jiital ci nuyoo bi kilifa yu tedd yi jiite jotaay bi di waa kër xaadim rasuul jëwriñ lim na leen léegi du mat a sore ci limaat bi di imaamu jàkka ji moom mi nga xamante ni dëkk bii nu nekk ni tey moo fi imaamu ratib ci jàkka ji bu ñu ko nuyoo nuyaale nañu mboolem kilifay diine yi nga xamante ne bii moom la jëwriñ lim léegi di nuyu chef de village yi fi teew di nuyu président daayira yi fi teew di nuyu groupement jigéen ñi fi teew di nuyu senes bi nuyu yooyu yëpp nag ñu teg ko ci kaw nuyu mag ñi di magul dëkk bi di notable yi seen taxawaay rafetlu nañu ko xale yi nga xam ne ñoom ñoo taxawal lii ba mu mel nii di ay njaboot ci kilifa yooyu kilifa yi de dégg nañu sant nañu yàlla ndax li mënoon nañu jëm ci yeneen yu wuteeg yii waaye li gën a dalal xelu mag ñi te ñu di leen ñaanal ñoom ndaw ñi yàlla guddal seen fan te wéral leen ci darajey Seex al Xaadim yal yàlla sàmm leen te musal leen li ñu nekk yàlla leen ci yàlla gën a saxal bu ko saxalee yàlla da yàlla nangu dugal ci jullit ñëpp ci barke sallallahu alayhi wa sallam mag ñi day bëgg nañu nda yëg nañu ne yokk nañu ba yëg fii ñu toog nag ci kàddu yi ñuy jotam ñu ngi sant bu baax itam kilifay diwaan bi nga xam ne ñoom lañ ko seqal lu ko dale ci monsieur le maire ba ci sous-préfet ba ci conseil ñoom it dañu am wàll te nu bokk ñoom bis bi ñu ngi leen di jotal xam naa dinañu agsi waaye bala ñu agsi ñu jutal seen i bu ñu agsi wu leen kàddu ñu yóbbaale leen ci ñu leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay bi ñu taxaw ci gox bi. sant kilifa yi fi teew yëpp di ñaan yàlla yàlla na yàlla may ñu yàgg teewee jotaay bi kontaan yi du gudd. E, li ñu ciy wax rek mooy e, li ñu fi daje ndey ci mbir gi te mooy gën a feddali sunuy ngemb gën a feddali sunuy pas-pas. ci jaamu yàlla ak royee ko ci sunuy kilifa yi nga xam ni ñoo waral lii lépp te bokk ci kilifa yooyu muy xaadimu rasul radiyallahu taala anhu moom moomu nga xam ni eh, ci ni ñu koy nettalee ci histoire bi mu feeñee ci jamono dane xam naa ne xel na day yonante mënatul am ginnaaw yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di nga maam loolu mënatul am dinaa jël sama bopp def ko xaadimu rasul ba nga xam ne dinaa liggéey ci ginnaawam ba lépp loo xam ne nii yonente yi amoon na ko wala ñenn ci anam am nañ ko dinaa ko am loolu am na. di leen ndokkeel bu baax ay ndokkeel booleen taalibe yépp di yëkkati di leen siyaare bu baax di leen siyaare Cheikh Mouhamadou Fadal ñi nga xam ne fii la nekkoon daa ànd ak yéen ci liggéey bi di ko di ko seeral baax di ñaan suñu borom mu dolli ko tawféex kon daal noo ngi sant bu baax a baax bi ñu suñu borom tawféex ne ñu mën a teew ci bis bi ñoo ngi sant bu baax a baax te di leen gën a soññ rek ci gën a liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek ndax liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek mooy li nga xam ne moo am njëriñ tey am njëriñ ëllëg noo ngi ñaan baax suñu borom saxal na ci noonu ne ko sëñ bay jaxte ba xamal rek nee na lépp lépp lu fexee ko wut yow rek a tax ñu di ko wut yaa jar di wut di wut di wut ba defee fu ko fu kenn du doogee sant bu baax ci lool lii di lu am solo loo xam ni war na fépp rawatina nag ci dëkk yu dëkk yu mel nii ngir ni lu baax rek moo am solo ci dundu doomu aadama te ginnaaw suñu borom subhanahu wa taala bindee doomu aadama wàcce ko ci kaw suuf digal ko ngir muy taxawe ay jataay wala ay taxawe ay taxawaay yu mel nii ci kaw suuf loolu moo tax suñu borom bind doomu aadama wàcce ko ci kaw suuf bu ko defee yonent bi jàngaloon nañu ni képp koo xam ni sos nga lu baax dana suñ borom dina la fay aw yiw waaye képp koo xam ni wuy si na lay suñ borom dana ko fay waaye lu toll ni yiw mbooloo ma la wuy si suñu borom dana ko dajale dajalewaat sottiwaat ko ci sa kaw yow ma nga xam ne yaa woote loolu man daa ilaa hudan kaana lahu min al ujuri ba hadis ba jeex kon lii lu am solo la bu ko defee liñ ciy toftal mooy di sant gone yi bu baax a baax ndax dafay mel ni ñoom ñoo taxawal lii kon loola ñu ngi leen ci sant te di leen ci ñaaxaat bu baax a baax di wax ne rek taxawaayu ndaw lii la tey ci dundu doomu aadama yi wala ci àdduna bu fekkoon ndaw yëpp roy nañ ci yi dëkk bii di di def ni gone yi dëkk bii di def kon yaakaar naa léegi tey ab safaan mën a jóge ci ci ci àdduna bi kon ndaw responsabilité mooy taxawal lu baax te Serigne Touba muy jàngale loolu la leen dénkoon nee na yow bi nga xam ni ndaw la nee na bul bëgg lu dul lu baax yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu anil huda loolu la dénkoon ndaw nee na yow bi nga xam ni ndaw la nee na bul soxla woon lu dul lu baax lu baax nag mënoo cee génn lii lu baax mënoo cee génn lii lii mooy li nga xam ni mooy si la nit ki di jaar pour am ngërëma suñu borom. mu joyal am nuyoo rek jëmee ko ci kilifa yi nga xëy ni ñoom la fi fekk da nga ni teewlu wu leen ba mën a jaar kenn ku ci ne turam. man na leen a bañ man na leen a xam lool waaye nag boo ëttee fekk booloo toog doo ca def teelu xool xool xàmmee kenn ku ci ne ko kenn ku ne nga mën a jaar ci turam waaye mi ngi wax ni ñi fi nekk ci kilifa yëpp kenn ku ne soxna si ne mi ngi lay jox sa wàccuwaay kenn ku ci ne mi ngi lay nii nii bu gën a tedd kenn ku ci ne soxna mi leen di jaajëfal daa mos a génne Touba jëm ndindi ni Touba ndindi mel tey melul mu dam ab taal bi mu arrêté oto bi mu ni sëñ bi ni chauffeur bi taxawul mu taxaw mu ni ko yóbbaale ko mu yéeg ubbi oto bi yéeg gis Cheikh Amadou Fata nekk ci biir mu rëy ni ko mbàkke di nii rek ñëw ak ko ëllëg it ñii rek boo baaw bu ngeen jëm ko def rek ngeen nekk ci yoon ku nekk ci yoon boo amul yóbbu dina la def yóbbu kon si Amadou Fadil moom mu nag soxna si sant na ko lool gërëm na ko lool ndax tool la day nangoo jaamu yàlla te nangoo liggéey te néew tooñ te joxe addiya te yooyu gisal na ko ci moom. ab taal bi day nangoo jaamu yàlla te nangoo liggéey te ñëw tooñ te jox hadiya yoon bi gudd kat loolu rek la ci amoon ci ci abd alha dafa waxan ni li baax ak li bon jërul leen yu bari ndax kenn ku ne xam nga ni lépp la yow te bëggoo kenn fekk la yow te te boo ci nekkee ba kenn fekk la si ko defoon ba nekk ba ñëw ñu nekk di ko mel bu ëllëgee jàpp te xam ne lu baax a ngoo kon ab taalibe mbooloo mu mu ne dafa war a gën su ko gënu fi bu ñu ñëw di tànn li baax ne moom ca lay bokk. laa xool ñuy jëfee rek waaye ndigal li nag ci ndax sama sanga yi ñu fi fekk ñu teewee rek sama kàddu yi mën a gàtt li tax ñu nangu ko sa mooy dañu lay yónni ku ñu yónni ku ne moomatoo sa bopp waaye kon du ma fi yàq di yëkkati kàddu ndax. Eh, ñu war a digle ñu ngi fi waaye nag cant moom suñu borom dafa ko santaale moo tax suñu daal di ñu yóbbaale yoon ma ak cant mu tàmbali ci dëkk bi ak réew mi yëpp te cant gi nag da doon sàkku cant ak ñu ñaanam ñu fi jógee foofu ba ma toll ba daa dégg ñu tudd Sëñ Fallu ak ak ak mboolem jullit yi daw ndax bis bi su ma se teewee rek damay xaw a ki ma daa àndal ci bi waaye ndox bi ma toll ba dégg ñu ñaanal ñu ngi leen ñaanal di ngay bàyyi xam. ndax moom la a wax pour tànk yi ci këram ba ba ba ba gis ne que tey ñu wàññi ko itam te seen fàllu bi fi jógee ñooñu ñëpp ngeen ñaanal waaye cant bi nag mu dama boo demee eh, mu tàmbalee ci jóor ñoom yi ndax yàlla daa dogal dëkk bi ñoo ñaari jóor am na fi ndax bi nga xamee ne bàyyi koy jàppaat nga xamee ne tool bi daal la ñu Tuubaa Bamba daal la ñu ko ji ba mu manqué jiw ba mu mottali jiw wa jiw ko raado ko noo koy jiw mu ngi toog bàyyi gaa mu ne ko yaa ma wutu ma wutu ko fekk rek day làmb pooram mu ne ba ma àgg ci doom bi bëgg jéem bëri na jëf jëf jëf saa la ma daal sëñ yëpp daa fanaan kër gi mu xëy di ko bijjante ci ci la ñu tase a jàpp ci kër mu ne sëñ ni daa bu mu doy ne ma Saalum daa sore defar ko nga dugal ci saak mu yóbbu ak murit la boobu maanaam benn gis bi santaane woon nga xam ne euh, bi mu ne wax xam naa ma kaay maa tax laay maa tax moom bi la saay wajël saaxi nu naa yooxe kabir wajël kabir naa yokku ñu di saaxee maanaam yonente bi comme sunu borom jikko ju tedd ju tedd la ko tàggee du arab du yonente bi du ju tedd suñ tuwaa ne ne sunu borom may ma sama wax jikko ju tedd ndaw ñi nag mu ne nañu teral mag ñi ndax mag boo ko teral rek moom waaye ne mag ñi itam bu la ndaw too ñu itam moo i fii ba bitim réew fu ñu dem rek kër Sëriñ Tuubaa yi dafa mu ñu soog a daan kon benn boobu la bàyyi gàmmu ba wane fukki jëm ndax waroon na ne dara ruus la la féetee ndax benn ko bu bu Sëriñ Mbàkke rek Sëriñ Mbàkke soxla loolu ngay wooye Sëriñ Mbàkke soxla loolu nga mën a wooye ndax gëm-gëm gëm Sëriñ Mbàkke soxla ñëw ñu ko daan bàyyi ak bitim doon jóori ca Dakar ndax tool Tuubaa Bamba dañoo ne ca Dakar sas fa day fa ñu jaaroon nag seen costume seen mbasin saa bu ñu wootee tool bi dañu fay jaaraat seen seen seen laxasaay ak seen naawal wër biir Ndakaar am na jëmm joo xam ne ji ba ko goree séené dañoo dem ci sëñ Ndiaye ne ko a xool diw ndax bi kii moom la war du moom ndax la ñu xamoon ci ñoom costume ak basé ñu laxasaay bi maa jàll si wax ba saako yi jur gi ñu indi ci réew mi rek nga xam ne ñeent fukki bëgg yoon naa tey saako yi jógee na Dakar ñëw bi ci ci suba kon ñoom ñu ngi fii waaye ñu ngi Dakar kon ba abdu boo demee na sant na euh, ñëpp gërëm na ñëpp seen jëf jooju rafet na àggante da ngeen ko yàgg jëf bàyyi gaamu jërëjëf ak mboolem daayira bi yëpp suñu motaar bëgg na ci ak mboolem taaliba yëpp ndax yaa ngeen mu ngi fi ndax jëm yi doon àndaan bi yaa ngeen ñu nga ak sa euh, sëñ Modou Dieng am na nga xam ne seen na ci lan euh, la waa adduna ne koy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu barkeb sëriñ Fallou barkeb sëriñ Fallou barkeb sëriñ Fallou barkeb sëriñ Fallou أعوذ بالله من الشيطان في كل موضع وفي الأوطان بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم القادر للأمان الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا هدى بدا mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Touba Mbasiyaan mu mel ni kàddu yi ñu yëkkati nag dinañ lottu lool ci yëkkati ko waaye dañ ndigal moom bu ñëwee rek jëfeel boo mënul jéemal kon dañuy jéem rek mu mel ni nag dafa am benn xamle bu ñu defoon ci suñu waajur woowu di bàyyi ngañ tim ci ñi ko xamul woon ñu xam mooy kan ak li nga xamante ni liggéey na ko ci dëkk bi ak benn marsiya boo xam ni defoon nañ ko ci koo xam ne dafa nekkoon kenn ci daayira bi nekkoon jàmbaar lool di Serigne Fallou Tine ñu ni Serigne Kane Tine mu ngi juddu le 18 cent 1930 mu ngi faatu le 22 août 2004 ay way juróom mooy baayam mu ngi tuddoon Moussa Tine way juróom bu jigéen mu ngi tuddoon Soxna Kumba Tine Serigne Kane Tine jullit la woon murit saadix la woon bokkoon ci jàmbaari lislaam mu ngi jébbulu woon ci sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde mu boole koog sëriñ Mouhamadou Dia Aminata ci waawal mu di ko liggéeyal ci toolu àllarba yi ak ci tund wii di Pambal ak liggéeyam ci lislaam bokkoon na ci góor yàlla yu bëri jaar nañu ci loxoom dugg ci lislaam nekk ay murid saadix ku ci mel sëriñ Mamadou Jonno sëriñ Youssou Jonno sëriñ Ibrahima Jonno ak ñeneen ak ñeneen daana dajale mbokki taalibe yi ci këram di leen berndeel ak di leen waxtaanal ci sëriñ bi bokkoon na ci liggéeyam école bi sëriñ Cheikh mayoon sëriñ Modou Dia ci loxoom la ko tegoon mu jox ko Baye Cheikh Tim ba tey ci jàmbaaram atum 1968 bi sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di woote gor Touba Belel yóbbu woon na mbooloo bu bëri ay ndaw ak i mag ci ñoo xam ni booba tuubuñu woon sax dugg ci lislaam njabootam yi mu yar leen ci diine jàngal leen alquran ragal yàlla akub taalibe mu mel ni kooku mooy Serigne Ngagne Tine moo xam ne li mu def ci lislaam lii da di lu ndaw rek lu ci doon feeñal. di jël nuyoo bi teg ko ci loxo borom dëkk bi ak élément bi ñu tegal ko ci mboolem gan yi fi teew ñu diital ci. kilifa yu tedd yi nga xam ne suñuy sëriñ lan suñuy wër wëllëri lanu jiital ci cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke ibnu cheikh Ibrahima Khoudia Mbacke da ci teg sëriñ Abdoul Ahad Jaxate ak cheikh Mouhamadul Bachir Mbay waaye da ci jiital soxna Xawa Mbacke ibnu cheikh Mouhamadul Lamine Baara ibnu cheikh Mouhamadul Fadel Mbacke di ci teg sëriñ Mbàkke Jonn mi nga xam ni moo fi teew teewaayu sëriñ Moxtaar Jonn mi nga xam ni moo fi représenté si sëriñ Touba fii ci tund bi ñu leen di ñaanal suñu borom gën a guddal fan te mottali seenub yéene ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa noonu la siyaare itam suñu mbokk ustaas yi fi nekk mel ni ustaas ma lay topp ak ñoom Mortada ak ñu leen ñi des waaye di siyaare itam lii nga xam ne itam ñoo waral bis bi te taxawal ko di waa daairatu miftaahu saadati daara yi bu Tuubaa Mbaseen jiital ci jëwriñ bi sëriñ Aliou Jonn mu tegal na ko ci loxoy waa dëkk bi yëpp waaye noonu la na siyaare itam mbooleem ñu fi teew ñu tudd seen tur ci góor mbaa ñu bañ a tudd ñàkk tudd seen tur ak ñëpp ñu fi ci ay ñu tudd seen tur ak ñàkk tudd seen tur kenn ku ne ñu lay siyaara di la jox sa wàccuwaay waaye duñu gañ itam di sant itam di siyaar soxna si nga xam ne itam moo fi toog ñu jox ko wàccuwaay bu ko yàlla jox ci dëkk bi waaye ci dund yi di soxna mat leen ñu ngi koy ñaanal yàlla moo yàlla mottali yéenam ci dëkk bi di siyaar ñëpp waaye di doon nuyoo boobu ak siyaar bi itam sunu gi mu ngi jógee ci kàddu Serigne Mamadou Dior mi nga xam ne moo fi nekkal Daaru Xudoos ci dund yi mooy kàddu cant kàddu gërëm kàddu mbégte kàddu ñaan lépp loo xamante ne mébét nañ ko ci sunu adduna ak àllaaxira te mu gën ci ñoom yàlla na ko borom defal te yàlla na ko tëppale lu lu gënal mu am ci mbégte lool moo tax mu yebal fi yebal nu fi ànd ak mbooloo mu takku mu jiital ci mbooloo mi sëriñ Ibrahima Jonn mi ak Baye Yuusu mi boole ci doomam di sëriñ Ngañ Jonn waaye ànd ak njabootu Baye Ngañ jiital ci sëriñ Aliou mi nga xam ne mooy taawam bu góor ak soxna Faatu mi fekk goman ci tàmmuñ ak sëriñ Modou Tine ak sëñ Omar mi waaye di ci àndaale sëriñ Mamadou Dione ak sëriñ Bokar Dione mi nga xam ne itam mooy sunu chef de ci dëkk ba ak sëriñ Modou Tine ak sëriñ Mbaye Tine ànd ak oustaz Alioune Sarr ak Abdoulaye Tine ak ñoom Pape Malick nga xam ne itam ñoom ñu ngi doogee Dakar ñu ànd ak ñoom seen délégation waaye ñu fekk fi itam ci biir jëwriñu Daaru Xudoos yi ñoom bay gàmmu yi ndax ñoom doonte ci biir dëkk bi nañ bokk waaye dañoo bokk ci biir délégation bi ànd ak ñun ak ñoom bay abdu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu takku takku ñu ànd ak ñun ci bés bi ñu am te rafet lu lool akub tent waaye ci biir loolu itam nee na ñu ngi joxaat wàcc waaye ñi ne itam ñoom la ñu bokkal ak ñoom bés bi te ñu rendre leen hommage ci biir ñu jiital ci sëriñ Mbay Tël ñoom ñëpp suñu borom gën a dolli seenub leer ci aljanna gën koo tobe ak sëriñ Daama Tël ak sëriñ Fallou Tël mi nga xam ne itam moo fi jóge barki dem kenn ku ne ñu ngi lay ñaanal yàlla na nga nekk ci ajjani sëñ Bàmba ya ci dara ji Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kenn ku ne ñu ngi la jox sa wàccuwaay bu baax ak eh, ñeneen ñi fi kon délégation boobu moo fi teew teewaaleel ci turu Baye Ngagne mi nga xam ne ñoo lañ tuddee bés bi ñu indi ci ay leeral tuuti rek ci seenu ndigal ngir nit ñu gën a xam ne ki nga xam ne moom lañ tuddee bés bi yelloo na ko di Baye Ngagne waaye doon na koo xam ne itam ku ku jar a xam la kon ñoom nee ñu ngi leen di bu baax ci feeñal gi nga xam ne bëgg ngeen feeñal te du day ngañ te mu meloon lu xaw làqu te soriwut ñoom am nañ ci mbégte boo xam ne am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem bay ngañ moomu nag kuy lim jàmbaari lislaam yi danañ ko ci limaale danaa soxna see wax na ci lu yaatu ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal di ko jox wàcc waayam wax na juddoom waaye bàyyi ngeen dafa ko koo xam ne mu ngi jébbaloo ci sëñ Seex Mbàkke Gaynde Fatma waaye bu ñuy indi jikkoom dañuy seet doxalinam maanaam stratégie bi mu yoroon nekkutoon koo xam ne itam maanaam jàngoon na alxuraan ba mokkal ko waaye boo seetloo doxalinam rek nga xam ne kii ku amul ndimbal la ci bi waaye ku jar a roy la waaye ku jar a àndal la ku mat a àndal la itam moom sëriñ la moom bi mu jàppaloo ci sëriñ Seex Mbàkke Gaye bi Fatma sëriñ Seex da koo ak sëriñ moom nag li lu yaatu la ndax ñoom dañ nekk ci wàllu yaxantu ak njaay ci la ñu xamante ba ñu ñu àndee waaye ci seenu ci liggéeyam ku ci farlu woon la waaye koo xamante ni ku bëggoon sëriñ bi la nga xam ba nga xam ne boo liwu ci moom ak dara moom la daan nooyee boo daan fekk mu toog sa sëñ Cheikh moom la daan nooyee moom la daan xëyee moom la daan gontoo moom la daan yendoo moom Serigne Ngagne moom liggéeyam ci lislaam dafa yaatu ndax ab murid saadix la woon li tax ma ne stratégie yoroon stratégie suñ Seex Mbàkke la woon ndax suñ Seex Mbàkke moom mooy ki nga xam ne moom la daan suñ Tuubaa daan jàkkarloo mu ne yàlla yéeme ndax man maa ngi nii toog waaye maa ngi nee dem te suñ Seex Mbàkke la daan joxe bàyyi dañ moom nag doxin siñ seex moom la yoroon te mu doon ko ànd ak sëriñ moo teex aminata suñu borom gën a dolli ay leer moom sëriñ ne gënoon naa fës ci ay liggéeyam mooy wàllu liggéeyal sëriñ bi ci toolu àllarba yaadim gi ak njaay sàmmanaam waaye yëmu ci woon doon na sa wutal sëriñ bi itam tool fii ci dëkk bi di ko ànd ak waa dëkk bi ni ko soxna si waxee sànq mooy wéetoon na fi booba waaye daan na fexe di ñàkkaloo nit ñi ci lislaam ba daan na jël ñi nga xamante ne sax boobu tuubuñu woon ñu ñu dugalee ci lislaam waaye barke boobu moo yóbbee ñooñu doon dem te fekk tuubuñu woon seen njaboot yëpp ci biir kon loolu rek képp ku ku sonn ci loolu rek jën yelloo na bis bi ñi nga xam ne itam ñoo àndoon ak moom ci ci ci liggéey bi te ñu jiitu woon ci mooy sëñ Mamadou Dione mi nga xam ne itam moo fi des di jëwriñam ci kër gi di jëwriñam ci Daaru Xuddos mu yebal fi mbooloo mi ba léegi moom moom mu ngi fi na fi gën a yàgg te sunu borom gën a mottali ak yéenam ban na mun naan ne sunu borom mooy bu mu àggale dañu ànd ko ak moom ñun ñëpp waaye firnde la ci ñoom Baye Youssou waaye ñoom Baye Aliou Dione ñoom ñoom moom ñoo doon ànd ci liggéey bi Baye daa xaw a tawat waaye ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàlla na ko saafara te bu sàkk ci mbooloo mi yàlla ñaan ñu ñaanal ko suñu borom te loo ko ci soboom ak mbooleem ñoo xamante ni tawat na waaye bàyyi nañ boole na bokk na ci ñi nga xamante ni itam dugal la leen ci lislaam ñoom Baay Ibrahima yi te boobu ay tànk lan ñoom Baay Mbaye Tine ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jotaay bi ñoom ñëpp ak ñeneen ak ñeneen boo xamante ne bu ñu leen waroon toog ci lu tudd bi waaye doonoon na foo xam fa lu jafe ndax daan na toog di wut sexo ndax boobu sexo moo xewoon bu doonoon kafe moo xew kafe la lay wax. waaye ñëpp ña ko xamoon ne jamono jooju itam luy suukar seexoon da daan jafe te muy suukar waaye jaraloon na ko mu lu toll ni mën a di ku teg ci këram saab guddi ba saab koor muy woon eh, nit ñi waa dëkk bi ñu tase ak ñoom muy waxtaan ak ñoom ci biir stratégie boobu tax na ba ñu bëree bëri tuub nañu ba faxee seenu njaboot sax dañoo tudd ci lislaam kon yàlla na ko yàlla booy fay kon loolu lu jara feeñal la ci ay jëfam waaye ba léegi jii mu doon am na ku ñu naan Serigne Gantel daan na dajale ñoom ñëpp di leen liggéeyloo ci tool waaye yëmuti ndax li ma waxoon sànq mbirum taalibe ndax ci biir liggéey bi dafa am ay mooy wàllu taalibe bi mooy ci waaye wàllu école bi moom école yi suñ si xam mbàkke yow maye woon ci 1977 te bëri na ci jotaay bi ci mag ñi fi nekk ñoom ñëpp jaar nañ ci école la ba ci jiw yi ñu nekk ci biir monsieur bi ñoom Baye Ibrahima Témé ñoom ñëpp ci école boobu la ñuy jaar mooy école Serigne Cheikh Mbacké bi nekk fi Pamba école boobu itam école bi nekk ci la juddoo kon liggéey la bu yokk ñoom école boobu itam ci loxoom la jaar waaye di ko Serigne Cheikh Jax Serigne Cheikh Mbacké di jox Serigne Cheikh Jax muy fukki école ak ñaar mu tasaaroo ci tund bi mu mu ko joxee bi da da koo da koo jël suñ suñ mot jax boole ko ak jàngalekat waaye ci ak gëmam ak pas-pasam suñ suñ mot jax xamoon na ne fii wéet na fi waaye dafa doon ngañ yóbbaale ko saa yu jàngale ba weer jot te amul loo koy fayee la ko nekk jox ko après man dinaa àggal la waaye ci pas-pasam ak bëggam amul benn jàngalekat bu mos toog ba weer dee te bañ nañu matalut lu ko koy jox ba xaar di ko wuti ci bay suñ mu teer kon loolu pas-pas la ak ngëm la ak bëgg la école boobu ñun ñii ci lañu génnee yëpp seede la ñu bëree bëri kon ci liggéeyam école boobu ci la bokk te yaakaar naa école kenn du wax juma te fekku fa école école boobu moo fa njëkk depuis 1977. waaye ci ak pas-pasam soxna si wax na ko sànq di sëñ Fallu Mbàkke sunu borom yàlla na dolli gërëm ci moom. nelwee 68 ba si Abdoulaye toog ci jal bi sunu borom gën a dolli mu woote gorob Tuubaa belal nga ñu bëri ci biir tund bi demoon na ñu bëri jóge woon Dakar waaye ci ak pas-pasam. ci biir ci woote googu tànn na ci ñu bëri jamono jooju ak nu mu meloon moom sax yóbbaale woon na ci ay ndaw ndaw yooyu ñoo ma wax ne ñun nii ci lañu demoon te bàyyi mbay mee toog ci la bokkoon ak sama baay baay dëcce te boobu nee na ndaw lañu woon waaye lii tax bay ngañ neex a waxal maanaam liggéeyam fu mu jaar ñoom ñëpp ñu ngi fiy liggéey la mu def ñoom ñëpp ñu ngi fiy moo tax loo fi wax bul dëgg rek ñoom ñit la ko weddi ba ñu am nañ ci dëgg waaye lépp day lu leer ñoom ñëpp ñu ngi fii moom pas-pasam ak joxoon gi mu joxoon boppam diine ak njabootam mu ngi nii toog amul ku ci na a jàngal nasaraan ñoom Seydina Ali mii ñëpp ñoom dañoo dem daara ba ñu bis ñoom Malick Omar mii ci école bii ci la jàngee ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp pas-pasam daal leen lu mu joxee boppam sëriñ bi noonu la joxee woon njabootam yëpp ci sëriñ bi ba mu jeex tàkk kon nag jëfi jëfi bàyyi nañ mënu suñ koo wax ba mu jeex tàkk waaye ñi mu yoroon ñoom ñëpp ñu fi koo fi wax rek koo fi jox rek mën nañ ko mën na mën na mën naa wax ci moom fii ba suba te du jeex bàyyi bàyyi te nii bàyyi baal moom wax na ci la day nañ jot na ci moom dara kon loolu ñu ngi ko koy siyaare ñoom day gàmmu mi itam day moomu lu itam nee na mu ngi la ciy sant bu baax ci dox gi nga dox ba yéen waa Mbasséne ngeen tëb tëb ji waaye ñoom nee nañ bu ñu sañoon moom day moomu ak njaboot gi ndax li mu leen defal dafa rëy xoolal li fi wàcce ci alquran li fi wàcce ci alxasaa yi ñu jël bés boobu jagleel la ñoo bu mu sañoon lépp lu ciy waar ñoom ñoo leen koy defal waaye ñoom nee na ñu ngi leen di sant ba fa sant yéen ñu ngi leen di gërëm ba fa ngërëm yéen ñu ngi am ci yéen mbégte ba fa mbégte yéen foofu fu mu tàmbalee foofu la fu mu yem foofu la tàmbalee nee na ñu ngi leen di sant bu baax mbooleen ñi ñu àndal itam sant nañ bu baax mbooleem ñu fi teew kenn ku ne ñaanal nañ leen siyaar nañ ñëpp